إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci tey ji nga xam ne mooy juróom-ñeenteelu fan ci chehru ramadan nekk suñu juróom-ñeenteelu daje ci keppaarug ramadan mi fii su nombre du ramadan ñu war a wéy ak yéen tey ci liñ leen digoon ci waxtaani ki nga xam ni moo gën ci jaami yàlla yi di suñu yenent ba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yenent boobu daa bokk ci yenent yi nga xam ni ñoo jiitu woon te ñu waxtaane ko ak yéen démb ci barki démb bokkit ci juróomi yonent yi gën a màgg te ñu waxtaane ko woon ak yéen démb muy nuux ibrahim muusa isa ak seen sang sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobu yàlla moo ko tànn jiitu ko yàlla di yónni ngir mu indi diini la yàlla rafetaloon ay jukkoom defoon ko mooy koo xam ne nii ku doon jëriñ société bi di taxaw ci ñoom gën jaa mag di taxaw loolee la jullit war a gëm yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yàlla da doon yónni ay yonent ñuy jàngal nit ñi diine di leen jàngal ak mbaax yonent bu ñëw am lu mu dolli ca la ka ka ka jiitu indi indi indi woon babaa nag yàlla di matal diineem ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lay wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina bis na ki tey day matal naa seen diine matal naa la nga xam ni mooy seen diine mottali naa samay xéewal ci yéen gërëm naa lislaam mu nekk seen diini moo taxoon yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam daan ñu wax ni masali wa masalul anbiyaai min qabli ka masali rajul bana bunyaanan fa axsana wa ajmala illa mawdia labanin ila mawdia labina من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا ودعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه مسلم yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nee na sama misaal ak yonent yi jiitu woon daa mel ne waa ji doon tabax benn château mu daal di koy tabax château bi rafet lool fenn mànkewul waaye am benn ci côté miir boo xamee ne nii dafa manqué benn brique bu fa waroon a nekk ku ñëw rek yéemu ci château bi waaye nag mun a waaw moom brique bi moom lu tee woon ñu complété ko rek ngir miir bi fat yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni man may brique boobu yonent dootul ñëw sama gannaaw loolu it mbokk su doon Makka rek lay waxe doy na su doon Amérique lay waxe doy na waaye bu doon Sénégal danaa ci dolli ne yonent boobu nga xam ni yàlla mataloon ni diine ji ci moom man ka matale ci ñaar fukki at ak ñett yem dund ak saxaabatul kiram ba mu faatoo diine jeex na amma nag ndax judduwaat na gannaaw ba nekkaat beneen yonent feeñ ci beneen jëmm di jàngal nit ñi diine loolee mbokk ci seytaani la jóge waaye jógewul ci la nga xam ne mooy diine yàlla ji abubakar ak omar gëmoon mbokk mi ngi noonu mbokk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ñii nga xamee ni nii mooy ak dundam yàlla subhanahu wa taala mooy ka nga xam ne moo ko sàmm mu nekk nit koo xamee ne nii nit ki gën a mag ci nit ñi la ci wàllug la nga xam ne nii mooy njëriñ yi nga xam ne amaloon na ko doomu aadama yi ba même bu doon te ne dañ naan yàlla yónniwu ko sax da ngay gis ni yonent boobee doyoon na nit ñépp di ko bàyyi xel ca na nga xam ne nii noonu la doon taxawe doomu aadama yi ak njëriñ ba nga xam ne amaloon na ko doomu aadama yi bokk na lu doy seede ci loolu keroog bi nga xamee ni nii jibril feeñu na ko feeñu goo xam ne nii bett na ko lool ca loolu it yàlla moo ko wax ci ab téeréem wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitaab mosoo xalaat ne daañu wàcce ci yow téere kon bett ga ko jibril bett wàcce ci moom alquran tiital na ko mu ñëw ca soxnaam sa Khadija radiyallahu anha ne ko ah soxna Khadija man de dama tiit ci sama bopp soxna soosee daal di koy dalal ca loolu mooy wareefu bépp jigéen fu sa jëkkër jë jële ca àll ba akub jaaxleem ngal la way dalal ko ak meram ngal la way dalal ko ak fitna bu mu mën a doon ngal la way dalal ko bul bokk ci soxna yi xamb seeni jëkkër bul bokk ci soxna yi tiital seeni jëkkër bul bokk ci soxna yi yokkoo ak jaaxle seeni jëkkër soxna Xadija def na ko laa wallahi laa yuxzika allahu abada déedéet yow yàlla du la toroxal mukk ci àdduna innaka tasilu rahim yow yaa ngi jokk say mbokk wa tasduqul xadiis ca loo wax dëgg la wa taxmilul kalla ku gàdd am bor nga gàddul ko ko wa tuksibul maduum lu nit ñi ñàkk nga wuti ko indil leen wa taqri u dayf nekk di dalal gan yi jaaxle wa tuiinu ala nawaibil xaq di dimbali nit ñi ci lépp loo xam ne bett na leen ci nattu yi coono doo ko boole mukk ba pare yàlla di la toroxal mbokk loolu buxaari solo na ko muslim solo na ko kii mooy yonent bi yàlla bi nga xam ne bu dul woon yonent sax doyoon na mu nekk la nga xam ne mooy royukaay suñu borom yàlla bi mu ko yónnee nag mu def ko nit koo xam ne nii multidimensionnel la mooy amul benn wàll ci wàllu àdduna lu dul yonent yàlla ba joxe na fa am njàngale ak misaal boo xam ni buñ daje woon xalaatkati àdduna yi yépp mënuñoo indi lu gën a rafetal loolu loolu nag yàlla moo ko jël wattu ko wattu gam ko wattoo borom bi ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun ñun ñoo wàcc zikr ca mooy alquran ak sunna ak doxalinu yonent bi ca ñun ñoo koy sàmm looloo tax liñ lay jëkk a wax mooy histoire bi gën a wér ci àdduna yépp ca loolu mboolem historien yi nga xam ne ak naafiq nekkul ci seen dënn ak parparloo ak fu ñu mën a bokk ci àdduna nangu nañ ne histoire bi gën a juste ci àdduna mooy histoire yu lislaam histoire yu lislaam rek moo am chaîne bu continuer nga xam ne kiy nettali wax ji danaan man de maa toog ak samba samba nee na ma moo toog ak demba demba nee na ko moo toog ak ali ali nee na ko maa toog ak diw ba baa yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma bu dee yeneen histoire yi nit day ñëw rek bind wax ci loo xam ne nii ay siècle la woon balaa am vingt ans trente ans keneen ñëw dajji la mu waxoon mbokk moo tax ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daara réerul ci ay jëfam daara réerul ci ay waxam na doon jamonoy guerre ca biir jumaa ja ca biir këram ci ay tukkiim daram réerul organisation ba mu taxawaloon ci diiru ñaar fukk ak ñett loolee tax na ba xalaatkat yi nga xam ne dañoo ragal yàlla bokk na ca benn ki nga xam ne moo bind les cent hommes les plus influents du monde mooy de l'histoire mooy téeméeri nit yi gën a am jeexital ci histoire la jël bind ko ci ab téere téere boobee kam ca jiital mooy sunu yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca moom ab chrétien la mi ngi dem ba naan ku doon comparé yenent yàlla muhammad ak isa ibn maryam dafa mel ni yow mi jëloon benn professeur université di ko comparé ak benn xale bu nekk primaire ca mbokk kooku du jullit waaye moom fam xoole rek mooy jeexital bi nga xam ne am na ko ci àdduna ak redressement yi nga xam ne def na ko ci sallallahu alayhi wa sallam na am loolu mënul ñàkk ci moom lu tax ma yàlla moo ko jàngal histoire yi mbooli mi yenent yi jiitu woon daaji na ko nag ulaika alladina hada allah fa bi hudaahum iqtadi ñii mooy ñi ma jubal ci yenent yi wan leen fan jaar fan jaar ak seen xeet ne nag jaaral ma ci seen yoon looloo tax lépp lu baaxoon ca yonent yu jëkk yi yonent bi alayhi salaam da koo dajale ca jëmmam ja loolu moo tax mu amoon réussite boo xam ne kenn amu ko ba dañuy wax buñ doon dañuy xool rek mission ci kaw suuf ñu xool rek ci dajale gém dajale doomu aadama yi mbokk yonent bi alayhi salaam mi ngi ñëwoon ci géerug arab ñu teqalikoo ay famille teqalikoo ay giir doon ñoo xam ne nii ci guerre lañ dëkk rayante lañ dëkk ki tedd mooy ki ëpp doole ki torox mooy ki amul dara doxandéem kenn faalewu ko jigéen du dara jaam nit ku ñuul du dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw boole ay xol ñoom ñépp ñu wëlbatiku nekk benn moom la ko borom bi subhanahu wa taala di wax ne هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سنبرم يالا من يرنتي يالا بي ما لا دمبلي ci sama ndimbal jël julit ñi boole leen ñu ànd ak yow ma boole seeni xol su doonte ne ne danga amoon trésoru kaw suuf ngir bëgg nit ñi doon benn loolee mënuloo ko am loolu nag mbokk yàlla jaarale réussite boobu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñuul ñi joxanteeg loxo ñu weex ña waa Faris joxanteeg loxo waa Makka waa Ruum waa Éthiopie amul benn gox lu dul ay nit jóge nañ fa bokk laa ilaha illallah bokk daje ca jàkka yi di rukkoo ko sujuut ku nekk jël sa mbagg teg sa mbagg moroom sa tànk sa tànk moroom àndandoo di di koor àndandoo di yaakaar benn boroom bu doon dajee la googu rek moo doon mission loolee mbokk ñu xam ni réussir na ca lu kenn mësul def ci kaw suuf mbokk yonent bi alayhi salaam buñ ko xoolee ci côté li ñuy tuddee ananiya mooy léegi égoïsme doomu aadama bi ku nekk di xool intérêt boppam loolee lan la ca def mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na tàggat nit ñi gëmloo leen ni sa intérêt ngalawaay boo ko bëggee mooy jëriñal sa moroom xamal leen ni ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi xamal leen ne sa alal liñ ci moom mooy la nga ca joxe jox nit ñi ca yàlla tax xamal leen ni doomu aadama bi doo gëm mukk lu dul ne da ngay bëggal sa mbokk jurit li nga bëggal sa bopp xamal leen ni yéen jullit ñi benn jëmm ngeen mi ngi mel ne rek heure bu bopp dee metti yaram yépp yëg ko loolee mbokk noonee mu jëlee saxal ci nit ñi li ñuy tuddee partage mooy séddale ku nekk di gënale sa bopp ba sahabatul kiram passé woon partage mooy siddoo bi nit ñi xam suñu borom bu ne yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa lu bëri ci sahabatul kiram da nga daan gis ko am benn mbir bëgg ko lool yaakaar ko lool mu yëg ne mbokkam jullit tamit amu ko mu xañ ko boppam jox ko mbokkam jullitam mbokk kan moo liggéey loolu mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy delloo ci wàllu yar mbokk yenente boobee mooy ka nga xam ni moo yar saxaaba ya jële leen ca àll ya xamuñu dara duñu bind duñu liir xamuñu lu dul sàmm ay nag xamuñu lu dul xeex ku man sa mburum duma mu yar leen tàggat leen jàngat leen ñu dem ba daaneel empire yi nga xam ne ñoo jiite woon adduna bi la nga xam ne mooy waa Faris ci Irak la ko wër ëmb lenn ci Europe waa Rome nga xam ne mooy occidentaux yi taxawal la nga xam ne mooy justice nekk ay buur yu maandu loolee lépp sallallahu alayhi wa sallam moo ko def ci diir boo xam ne nii ci ñaar fukki at ak ñett kese la bu doon mission yépp dafa tënku ci réussite boobee rek mbokk ñu xam ne kii mooy ki ñuy war a jëla yaakaar ki ñu war a gën a topp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yonente boobee bu ñu xoolee ci wàllu militaire mooy ka nga xam ne nii moo teg justice ci kaw suuf ca mbokk julit tey jii da ngay xool américain yi doonte ne ni yàlla borom suuf indi na loo xam ne talatuñ ko tey yàlla indi na armée ba mu wàcc ci kaw suuf muy armée corona armée corona boobu maîtriser na toutes les armées yu nekk ci kaw suuf tey armée corona corona yooyu saxal na ci kaw suuf avion yi ak hélicoptère ya lépp ngi na teg ngir corona bi jóge ci yàlla waaye mbokk jiitu corona occidentaux yi dañu jàppoon ne am nañ diine ju ñuy tuddee démocratie am nañ droit bombarder dëkk bu leen neex ngir yee démocratie amu fa noonu lañ bombarder Irak rey fa des millions ci ay nit ay xale yépp ngir yee Saddam Hussein saxalul démocratie bombarder Libye ngir yee saxaluñu démocratie bombarder Afghanistan ngir saxaluñu démocratie mbokk loolu nag contraire ba la yàlla yónni woon ay yonentam ñoom ñiy jihaad ngir saxal ak njub ci kaw suuf ngiree doomu aadama yépp bokk yem doomu aadama yépp mën a jaamu seen boroom ngiree allaaxira gën jëm ñu mën faa texe loolu it bu ñuy xool le plus grand géné grand général d'armée bu histoire ma sa xam mooy suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam mi jiite woon armée ba di wax nit ñi dem leen ngeen jihaad ci yoonu yàlla jihaad leen ngir kàddug yàlla jëm kaw képp kuy jihaad ngir nga bëgg ñu ne moom jàmbaar la boo dee safara nga jëm da nga bokk ci ñuy jëkk a dugg sax safara képp koo xam ne da ngay jihaad ngir fayu tooñ lañ la tooñoon ku mel noo ne nekkoo fi sabilillah jihaad leen ngir kàddu yàlla jëm kaw loolee moo taxoon ba mbokk julit da ngay gis ñoo xam ne noonu lislaam lañu woon rey ay julit ñu dul jeex waaye keroog bañ tuubee julit ñi def leen ay doomi ndey ndax la taxoon ñoom ñuy jihaad mooy nit ñi tuub dugg ci lislaam xaalid ibn walid ñaata la rey ci ay julit ikrima ibn abi talib ikrima ibn abi jahal ñaata la rey ci ay julit kan moo jiite woon ghazwat uhud mooy abu sufyan kan moo reyoon hamza mi nga xamee ne ni mooy sayyidu shuhada mooy waxshi ñii ma leen wax yépp keroog bañ tuubee dugg ci lislaam julit ñi dañoo ànd ak kontante bu jéggi dayoo bëgg leen sopp leen lu tax mooy effort yi ñu doon def yépp dañ ko doon def ngir yàlla mbokk ndax gis nañu armée bu mel nii ci kaw suuf abadan buñ daan dem mu ne dem leen xeex leen ci yoonu yàlla ñey xeex yàlla ku nangoo dugg ci diina bàyyi leen ko ku nangoo jàmmoog yéen bàyyi leen ko bu leen rey jigéen bu leen dagg ay garab bu leen rey ku toog ca palaasam di jaamu yàlla ña ngeen fekk seeni tool bàyyi leen fa bu leen rey màgget yi sallallahu alayhi wa sallam bu doon dundam dañuy xool rek sur le plan ni mu jiite woon militaire kooku rek doyoon na muy reyukaay bu mag ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mbokk gannaaw loolu gannaaw loolu la nekkoon ab jaamu yàlla boo xam ni ku daan jokkoog boroomam guddeeg ba cëkk di tudd yàlla fu mu mën a toll place bu mu mën a toog làmmiñam maa ngi tudd yàlla abdullah ibnu omar nee na danaa toog ak yonent bi alayhi salaam wàññi lu jege téeméeri yoon mu naan rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim noonu la daan nekk ca bëccëg ba sax ca jàkka ja saxal julli juróom moo ki saxaabaam bu guddi jotee mu daal di jóg taxaw sallallahu alayhi wa sallam taxaw génn wàllu guddi gi di ko naafila wala ceer ba di ko naafila sallallahu alayhi wa sallam ba tànkam ya néew yi ba tànkam ya xar mu boole koog jooy yu metti ba baa soxnaam yi di ko fàttali ay yow mi yàlla yónni yàlla baal na la loo mas a def yàlla baal na la loo nar a def mu ne leen afala akuna abdan shakura ndax man du ma nekk jaam boo xam ne damay sant sama borom gannaaw ba mu yàlla defalee ku ma defalul lu mu defalul kenn moo ko da ngay xool général d'armée bee nekk ci armée ba xoolal imam bi jiite armée ba jiite jàkka ja xoolal kee nga xamee ne nii moom moo nekk ca jumaam ja jumaa jooju nga xam ne mooy palais de justice bëccëg bi yépp mi ngi àtte sëy yi mi ngi àtte histoire yi mi ngi àtte xeex yi ku mel nii xanaa daa waroon bu guddi jotee rek mu jaaxaan ci ay soxnaam la wallah ma nga nekk taxaw di jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla goo xam ne nii amul kenn ku ko ca masa dab ci ndaw yi sahaaba ya ñoom ñépp ku ko ca masa nattoo ba nga dajeek moom guddi di naafila rëcc nga ko ne dootu amati nan ci xool rek ki nga xam ne mooy Huzayfa nee na maa gis yonente bi alayhi salaam di naafila ma ñëw taxaw ci wetam mu jàng suratul baqara di deme dem ba mujj mën a waaw ah kii mbaadu da ko nar a xaaj muy continuer ba saar wa jeex ma ne bisimilah jàmm nee na mu ubbi ali imran nee na may tiit muy continuer ba ali imran tege côté mu ubbi suratul nisa dem ba mu tege côté mbokk loolu xam nañ ni ak nañ ñettilee noonu la doon jànge aaya bu mu yegg dana taxaw ñaan yàlla gannaaw ba daa di bu dee mbugal mu musulu ci mbugal bu dee yërmaande mu ñaan yërmaande mbokk loolu boo koy xool dana nekk lu mu bon bon lu jege deux heures trente wala lu jege sax trois heures de temps yoo xam ne bal trois heures de temps yoo xam ne yonent bi alayhi salaam mi ngi taxaw benn place di jokkoog borom bi di jàng téere borom bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ca tàggateloon ay sahabaam mooy jokke leen ak yàlla mooy amul kenn koo xamee ni nii daana nangu nga boole koog yàlla abadan da leen daan tuddloo yàlla wax la yonent yi jiitu woon waxoon ubudullah ma lakum min ilahin xayru jaamu leen yàlla amu leen ku ngeen ko war a bokkaaleel benn waay ñëw ci moom ne ko bu subaa dey bu neexee yàlla neex la yonent bi na bërét tiit ne ko ajaaltani lillahi niddaa ndax danga may jël di ma booleeg yàlla waxal bu neexee yàlla kese loolee mbokk dañuy gis noonu la meloon mu safaanoog li ñuy xew suñ jamonoy tey wallahi mbokk jullit avant may def waxtaan bi yàlla nattu na ma ma génn ci tali bi nekk fii ca sama wet daa di fay gis benn tableau ña nga ca def diw jaamu sëriñ diw ca tableau boobu wóor na ma ne wóor na ndakaaru bu wóorul Sénégal diw jaamu sëriñ diw di wane événement yu ñu koy defal mbokk ndax am na kenn ko am jaam ko dul yàlla ndax am na kenn ko bind ko dul yàlla loolee mbokk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàllu googee da ngay gis ne ca la taxawoon taxaw ci ay sahabaam lii ma la wax yépp day wax naa la sànq ne la guddi ga da daan naafila waaye nag maa ngi commencé gi yow ci diggu guddi ga de wala ceeru guddi ga de la ca des lu mu daan def la ca des daf daan nekk ak ay soxnaam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne chaque takkusaan mboolemi ay soxnaam dana dugg seen néeg waxtaan ak ñoom dooga bu guddee mu fanaan fa muy fanaan da daan fanaan ak i soxnaam sallallahu alayhi wa sallam bañoon képp koo xam ne nii da ngay sàggane sa njaboot mu ne xayrukum xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam man nag may ki nga xam ne may ki gën ci sama njaboot sallallahu alayhi wa sallam noonu mu gëne woon ca njabootam nag du ne kër gi dañuy toog ganaar suba ganaar ngoon armaal yi fees takkaay yi fees déedéet bal yàllaa ko waxloo qul ya ayuha nabi ya ayuha nabi qul li azwajik in kuntunna turidna تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما mbokk lan la yonent bi gëne woon ci njabootam yàlla jàll wa ala moo ne ko waxal ak sa soxna yi nee leen bu dee dañoo bëgg rek taaru àdduna kese kaay leen ma ñaan yàlla mu wërsëgal ma ma jox leen ku nekk ba mu doyle ci alal ak takkaay waaye nag gannaaw ba ma teqalikoo ak yéen ngeen dem bu dee ne nag da ngeen bëgg yàlla ak yonent yàlla ak pay ya leen di xaar ci àjjana yàlla ngi leen di waajal pay yoo xam ne waajalu ko benn jigéen ci kaw suuf loolee mboolem ay soxnam yépp ànd ne ñun day payug àllaaxira ñu gënal yonent boobu moo tax mu teete leen jëma leen ci yàlla daan leen jàngal aayay borom bi yëkkati leen ci seen jukko yu kawe ya doonte ne kër ga daan nañ toog lu jege ñetti weer yoo xam ne cin du fa takk lan lañ daan lekk tàndarama suba tàndarama ngoon tàndarama guddi loolee lu dul léeg-léeg suñu ay chene suñu dëkkandoo boo xam ne moo ñu daan may meew lii mbokk mooy yenenti sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne kenn ca xalaatkati tubaab ya xaw ma Voltaire laate wala Victor Hugo mi ngi wax ne àdduna ba mu sosoo ba tey benn buur lañ ma sa xam ci buur yi mu jiite ab empire ba pare waa këram tege la ay jour di fande amuñu lu ñu lekk kenn rek la muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam doonte ne ne ñooñu duñu ay jullit mbokk kii mbokk mooy yonent bi su ko defee yow mi koy roy ci wàllu googee xamal ne gën gën ngay gën ci sa njaboot mooy kër gi lenn lu xaraam bu mu fi am kër gi tàggat leen ci julli tàggat leen ci zikrullah ci jàng alquran tàggat leen teete leen jëme leen ci seen boroom wallahi loolu boo ko gisee suñ demee yomal qiyaama dañ la sant dañ la gërëm amma bu dee da ngaa échec foofu kër gi dara manqué yu fi waaye nga sàggane ci wàllu googi su ngeen dajee yomal qiyaama ku nekk dana rëbb sa moroom loolee mbokk di biir boo xam ne dañ cee war a bàyyi xel yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mbokk wàllu goo ko xoolee wàllu goo ko xoolee da ngay gis ne ah loolu rek doyoon na nit ñi topp ko doyoon na nit ñi jiitu ko wàllu set ca moo waral te ji ma toog fii di wax ak yéen bu dul woon ak looloo maa ngi waroon a toog ca jàkka ja di ànd ak yéen ci téere téere borom bi la waral loolu muy corona bi ma gaayu corona nit ñi ne nañ xamuñu lu koy faj léegi lan moo ci des prévention prévention boobu lan moo ci priorité mooy ak set gaa yi yonent boobu xanaa moo ñu indil la nga xam ne balaa kenn julli jàpp bala ngaa jàpp raxasal say loxo ñetti yoon gannaaw ba raxasal sa kanam delluwaat loxo bu ne nga raxas ko ba ca conce la ñetti yoon moo gaa yi ndax les professeurs ya nekk États-Unis ak Europe di jàngal nit ñi ni ñuy mucc ci corona ci ak set ak waay ak neexoon ñuy jël loolu di ko mentionné ci nit ñi ca mooy dee leen def li jullit ñi di def xanaa du yonent boobu moo ñu jàngal kon mi ngi noonu ci ay waxtu yu safaanoo fajar def ko tisbaar def ko ñàpp tisbaar kenn mënu caa ju liggéey kenn bu ko defee lum bon bon ñetti yoon par bis da nga toog ci place raxas say loxo raxas sa kanam raxas la nga xam ne nii moom mooy sa say tànk lu dul nga am rox sa ci ci masaako mbokk kii mooy yenent bi nga xam ne dimension boo ko xoolee rek da ngay gis ne da nga cay fekk la borom bi subhanahu wa taala di wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawm al axira wa zakara allaha kathira nekk na ñeen leen ci yonent yàlla bi royukaay ba gën a màgg ci royukaay yi ci lépp lu aju ci seen wàllu diine ca atte ya ca jaamu yàlla ya ca jukko ya ca jëflante ya ñeel képp koo xam ne dafa yaakaar ngërëmul yàlla yaakaar àllaaxira mu texee tebbi aljanna mbokk kii mooy yonenti yàlla bi yal na yàlla saxal cofeel gu mat sëkk ci suñu xol ñeel ko dogu gu mat sëkk ci topp ay ndigalam bàyyi la nga xam ne mooy ay tereem incha allah mbokk jullit comme dañoo yegsi ci suñu trente minutes yi ñu waroon a am ci keppaarug tey gi dañuy yemele fii waxtaan bi ba suba ak jàmm ñu continuer ci soppe bu màgg boobee ci royukaay bu màgg boobee balaa looloo ñëw ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu defal jàmm ak aafiya may ñu la nga xam ne nii moom mooy ngërëmam may ñu njéggalam teggil ñu nattu bii nga xamee ni nii moo wàcc ci kaw suuf ca la nga xam ne moom mooy yërmandeem ah mi ngi noonu mbokk julit wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh